man la Tamsir Diouf maa ngi toog ak fii ak professeur Issa Laye Thiaw moom mooy suñ moom la ñëw interview ku ma dimbale si fii nii mooy Demba Sène ñu ngi toog si këram si kër professeur Issa Laye Thiaw at jàmm gën jax saaw jàmm gën jax saaw waaw soo jiin man maa Demba suma xarit bi ñu ngi toog si kër si si kër kilifa gu mag gii ni nga xam ne ñëpp xamee nañ ko si àddina ñu ne ko professeur Issa Laye Thiaw si këram lañ toog fii nii tey soo lifin daf ñu dimbale si cosaani séeréer tëgg tëgg cosaani séeréer lu mu si xam ak lu mu si binda binda nañu see lifin ko defee ñu bind see dimbale pour bëgg ëllëg si biir ñi nga yéexee naka séeréer yi ak ñi nga xam ne nekkuñ séeréer sax bëgg a xam cosaani séeréer fu ñu jógee jógee waaw jërëjëf professeur Issa Laye Thiaw soo dama laa jébal lifin bi nag soo ñu laa laaj question ak li nga am pour li wax yëpp
waaw laaj bu njëkk bi donc mi ngi jëm ci sant turu séeréer yi baatu séeréer lan lan lan la tekki baatu séeréer o baatu séeréer wax nañ ci wax yu bari boo demee ñi nga xam ne ay musulman lañu dañu yàq baat bi lañ ci jublu pour séeréer yi bàyyi seen cosaan ñëw fekk leen ci seen tariqa mais lañu wax amul ñu ne séeréer mooy ki seet lu réer dem ci kër sëriñ mi ne lu réer li nga doon seet mu ngi nii kooku baaxul amul baatu séeréer pulaar yi ñu wax mu de seer ceer de inoon ceer de tàggoo nañu loolu wérul ndax fuuta séeréer yi ñoo ci jiitu tukulóor ay junni junni at ñoo ci jiitu naar yi ay junni junni at ci gànnaar bon nag mën nañu firi turu séeréer ci waxu pulaar lii am moo de séeréer mooy ki nga xam ne Seex Anta la mu wax moom la xel gën a nangu mu ne séeréer bi mu nekkee ci Égypte prêtre la woon prêtre mooy ki doon toppatoo mbiru tundu noonu kon nag séeréer la muy firi ci égyptien ancien c'est lui qui trace les temples ki nga xam ne mooy defal jaamukaay yàlla yi ne kooku la bu fekkee ne seet nga ci séeréer ñoom séeréer dañuy wax dama leen laaj waa fu ngeen jële séeréer séeréer ñu ne seede seede séeréer ñu dafa amoon magu séeréer boo xam ne dëkku séeréer bu ñu dëkkoo demoon dëkku séeréer fu ñu dëkkoon yàlla mu wax kenn jaamam na nga wàcc ci nit ñi ci suuf nga seet nan lañu mel ndax nangu nañ sama boobu kooku mu sol sagar yu bon fu mu dem ñu dàq fu mu dem ñu dàq mu dem ci kër benn magu séeréer mu dalal ko jox ko cere meew mu lekk ba suur mu delluwaat cere noo gis nit ñi ñu ne ah nit ñi daal fi ma dem yépp dañ may dàq bu dul benn kër daal ki ñu wax séeréer kër kooku laa dem mu teral ma dégg wax ne bon nga de solal yére yu rafet nga delluwaat ci nit bu mu solee yére rafet ñëwaat ci nit ñi ñépp di ko teral bon mu xam ne kon nit boo gisee nit na nga ko jàpp comme nit rek waaye bul seet ne am na lu rafet wala am na na nga ko seet l'être humain kooku rek ngay seet moom ngay jox pour la moo nga jox mais bul seet ne kii am na kii mën na ni koy mënuloo bon nag baatu séeréer ci niñ ko jàppee mooy loolu séeréer nag boo seetee ci dëgg-dëgg mën nañu wax na du turu ethnie mais turu religion la religion conception la parce que ne am na groupe séeréer yu bari maag Demba Safeen la ñu wax am na koo xam ne noon lay wax am koo xam ne ndutt lay wax am koo xam paloor lay wax am koo xam ne sin ngandum wala sin sin lay wax waaye ñooñu yépp ñoo bokk ni ñuy tuuroo ñoo bokk ni ñuy ñaan yàlla ñoo bokk ni ñuy béy agriculture ñoo ko bokk ñoo bokk ni ñuy sàmm seen sàmm benn sàmmin la moo ko moo ko bokkale bon nga seet ne bon séeréer du langue bi rek mais des pratiques et des croyances rituelles mooy séeréer ci séeréer bés bu bàyyee pratique boobu rek bàyyi tradition bàyyi religion traditionnelle dafay ñàkk lépp presque day dem ba dootu nekk séeréer waaw yaa ngi wax ci yaa ngi wax si ne góor gu ku kuñ daan daaxaar ba même si benn kuñu ku ku séeréer la tudda kuñ daan defee kuñ ku ko ku ko dalal dimbale ko ku ku séeréer la tudda ndax de lan waaw kooku dañu ne ne kooku moo seede amoo seede seere woon ne yàlla am na ndax bu muy bëgg a nit ma bëgg ko ndax nit la mu seere amub yàlla doolew yàlla ne yàlla yi fayee fayee ko kooku mu jox leen xam-xamu reen yi garab yi yooyu ne foofu la ko jële loolu lañu wax doom waaw léegi léegi sànq tudd nga xeetu séeréer yi muy seex saafi ndut noon siili laala donc foofu tamit moom dafa bëggoon xam baat yooyu tamit bu ci nekk ban la fan lu mu tekki
saafi boo seetee ci moo saafi dina jafe nga firi ko ci saafi saaf kenn ci séeréer yële sax buñ ko gënee saaf mooy lu ñu walbati loolu la ñu tudd nga seet ci moo wa lu ñu walbati nga seet ci moo siili siili mooy séeréer rek siili séeréer ndax ci ñoom paloor lettre R L lañ koy def lettre R L lañ koy ko dañ koy pop boo ne siili siili mooy séeréer séeréer lettre bi mooy soppeeku ma siiri siiri mooy séeréer séeréer alors ñoom ñoo ñi xam ñoo dëkk Pout ak Kaacalik ak Mbadat ñooñu ak saafeen wax bi rek moo woote tuuti waaye nun déggante nañu te dañuy jëlante jabar te ñëpp ay résistant la ñu woon olof yi bi ñu ñëwee roi buuru Kajoor ak buuru Kajoor ak buuru Bawol dañu doon ñëw jàpp séeréer dem jaay jaam et séeréer groupe séeréer cangin amuñu jaam amuñu jaam amuñu woon géwél amuñu lawbe c'est pire société pire boo xam ne duru ma wolof yi ñoo doon ñëw di leen jàpp di leen jaay jaam ñuy xeex ak ñoom ba boo tax ñoo bokk benn cosaan ñu bokk benn culture ki ndut ki ñu wax Mamadou Mbeng ci Morola maa ngi ko fekk këram ma ne ko baatu ndut lu mu firi mu ne ndut c'est l'initiation ndut c'est l'initiation ah ndut mooy initiation ci waxu séeréer siin initiation dañu doon def initiation nit ñi di dem ñu wax nduta nduta nduta kada doda kada nduta ñu ngi dem leel ba ñu ngi dem leel ba alors wolof yi dégg ko ñu tudde leen ndut tudde leen ndut jangin séeréer noonu jangin mooy seer yi nga xam ñoo dëkk Thiès baatu noonu dafa xaje ko mais séeréer yi nga xam ne séeréer yi xam ne ne raison de Thiès yépp Thiès noonu la leen tubaab yi doon wax noon mi nag ñu ngi ko jëlee ci olof noon mi nag am na firi yu bari bu fekkee ne version olof la olof keneen koo xam ne du jullit rek noonu la ñu ngi ko jëlee ci arab aduwullah arab aduwullah ku wuteeg arab gis-gis rek yow yaay noonu yàlla olof nag bu jël jël islam bi ñëw ci Afrique ñi tuubul yépp ñu tudde leen noonu kooku benn version la noon wane firi ci safeem koo xam ne dafa donn jikko baayam jikko maamam les caractères innés de son père et des ancêtres kooku noon ko ren noon dañ ko noon dafa niroo am noon noon we noon ci noon ci mooy ki nga xam ne nit la c'est un être céleste nit la boo xam ne nit ku yee kii lay doon nit ku yéeme la boo ko boo ko door doo ko xas boo ko dooree woon nga xas ko bu duggee ci néeg bi rek mu dee day am ah ci saafi ak séeréer yépp la noon ni dañ ko wax noon boobu noon boobu dina firi loolu fekk nit nga ko xam ne moom buy dee du ko waaj yoo jëkk rek dee boo ko xasee wala nga saaga ko day jëkk rek dee du waaj sax du du moo tax noonu façon nit kooku la nit kooku aussi dañu wax ne am na gaal gaal pirogue bu boo xam day dugg ci dëkk bi dëkk yépp koo gis guddi mu yegg ci gaal boobu balaa at bi de dafay dee kooku it noonu lañ koy tudde noonu mii tu maa ngi ciy defar benn livre maa ngi ciy defar benn livre sori woon naa ci lool ci manuscrit di wax affaire noonu lu ko saafeen game parce que saafeen dañ ci am woy yu bari sera jaanib sera noonu welaay sera jani sera non wera eh sera non wera gaali coodna ɓe yurahna ɓe mbuure ñoom dañu jàppoon ne nit ki boo bu naree dee mbuur lay jublu mbuur fa lay jóge nag door a dem alaxira alors loolu lañ gamoon ñu jàpp ko mooy noon noon wi dina firi yoowe waaye yooyu yëpp moom bu fekkee ne seet nga nag mu noon euh, bu jëkk bon l'ensemble de des Sérères de nord ouest de Thiès ah, ba teekee ba noon c'est-à-dire les résistants da nga nga ñooñu nit lañ yoo xam ne amuñu woon buur amuñu jaam li ñu gën a bañ wolof wolof bu dugg seen suuf rek ñu rey ko parce que lu tax ne wolof dañ leen def jaam comme dañ leen def jaam balaa ñu lay def jaam nga jàpp leen rey leen moo waral jóge alub kaañ bu déggee kaañ ci séeréer mooy ku ñeme saafi ci waxu saa mooy ku ñeme ku dul daw o ko kaañ nag dañu doon dogale foofu nit ñu duma leen indi seen bagage ñi ci gën a siiw dëkk ñu wax mbomboy ak dëkk ñu wax sànge ak dëkk ñu wax kisan ñi ñoo doon gën a dem ci alub kaañ di dog nit ñi duma leen nangu seen wax seen lu ñu lu tax ñu ne parce que wolof ñoo ñu dàqe Mauritanie ñu ñëw fuuta ñu dàq ñu foofu ñu jóge fuuta ñëw waalo ñu dàq ñu ñu dem jolof ñu fekk ñu dàq ñu ñu ñëw bawol ñu dàq ñu bon nag comme dugal nañu ci forêt àll boo xam ne ba fa lëndim ñooñu ñu doon dàq ku fi jege rek nañ ko rey parce que ñoom dañ ñu bëgg a rey alors loolu mooy indi pool boobu
lé- léegi si yooyu baatu sex bi defe naa moo des sex waaw sex sex wax bi am nañu wax waxu siin baaxul am nañu waxu bawol baax bawol gox la dëkk la ña ca dëkk dañuy wax wax boo xam ne waxu kaamee mooy li ñu wax séeréer siin siin gox la bu ñu xam dëkk la dëkk boo ña fa ne dañuy wax wax wax bu ñu waxu siin ñu wax boobu waa Jobaas dinañ ko wax Njagañaaw dinañ ko wax Saalum dinañ ko wax Bawol dinañ ko wax bon wax bi moo siin moomuñu ko du waxu waa siin wax bi waxu wax bi ci dëgg de wax bi mooy waxu waxu sex sex ci waxu Jobaas se sexu séeréer Jobaas mooy yomb boo xam ne kenn xaru ko maanaam lépp loo xam originel la racine la kooku moom la ñuy wax sex bon ñu jàpp ci ñu teene wax boobu nga xam ne waxu sex mooy cosaanu wax yi nga xam moom la séeréer di wax yépp puis béggam bi am na fi béggam bi am na fi moom la wax wax bi nag léegi histo histoire événement histoire moo ñëw nit ñi tasaaroo bi ñu tasaaroo wax bi am wute wute mais boo ko toppee yépp benn la waaw jërëjëf jërëjëf ku ku dugg si fii nii mooy ku ñu ooyee Njaga Géy ah jërëjëf Njaga Géy suma waaw suma doom suma suma doom suma suma suma papa ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay ci suma Ah, ah.
ki- mu ngi laa nuyu mu ngi Doomi bàjjen laa la.
suma doomi bàjjen la Ah, ah.
mu ngi laa nuyu papa ah bon jërëjëf waaw. Njaga Géy mu ngi laa nuyu yow caw la caw Issa caw ñoo def jërëjëf yaa ngi fi Dakar mu ngi Gàmbi mu ngi Bandi mu ngi Gàmbi ah Dakar ah waaw So, um, waaw fu nekk nii aha tegi nga lan la séeréer baat séeréer fu mu jógee Uh-huh.
fii naka different um, you know Uh-huh.
li nga li nga- li nga wax aha wax nga saafi ak si ba séeréer groupe yooyu noonu yëpp lan lañ lan lañ miin ak fu mu jógee aha fu mu nekk dama la bëgg a dugg ñu laajte um, si sant séeréer waaw sant séeréer yi am na am na yu ma si ràñ ji ma si bind ji ma si bind pour Juuf.
waaw waaw yi nga bëgg a xam du juuf rek ah, juuf, waaw, aha.
yi yi ma bëgg a xam fan la lan la tekki si séeréer ndax Oh.
si saafi ndax si nduul ak fu mu jógee Aha.
ak étymologie li ñu anglais di wax étymologie aha waaw oh waaw We'll start with, um, maa ngi pass over to Pa- kii nii Demba Sène c'est que aha mi wax la sambi sànni sant yi Aha.
sant yi fu mu jógee waaw sant yi nag euh, dañ ko taxañ ba fi mu ne lu jafee xam la parce que mag ñi waxu woon mais sant bi daal ku mu gën yëpp séeréer euh, kañu kañ boo déggee keroog kañ saaf yi la boo déggee kañ ci saaf yi mooy koo xam ne dafa def jaloore ñu koy bakk ci loolu oh, nga dem ci euh, wo- wolof sant ku def dara ñu lay sant di la ko gërëm nga dem ci séeréer siin wala séeréer se simangol sim mooy nga def dara ñu la koy girime di la ko sant léegi tur yooyu nag bu ci ne normalement war na am sant waaye nañ ko waxee bu fekkee benn nit wax na la rek nga jàpp waxam mën nga juum mais da ngay dajale wax yu bari Euh, par exemple euh, juuf juuf am ñu wax ne ci juuf la firi juuf veut dire daw ñu wax ne fay ne dañu reyoon ñay ñay alors ñu di ko dagg di seddoo euh, ne fay doo xam nga ci aada bu fekkee ne yow da nga rey nag nit ki ñëw feesal la ko mu fay doox mu dagg keneen ku ñëw dagg fay doox ñu ne fay foofu la jóge am ñu wax loolu ñi nga xam ne mooy caw caw aussi dañ ko wax ne moom sàmmkat la sàmmkat la tax ci caw caween boobu ca la ca la jógee caw bo yow caw mbonaa doo naan caw ñu nekk ñoo xam ne ay sàmmkat lañu am na ñu ne aussi caw mu ngi jóge ci njaw njaw mooy togg bu neex wala boisson locale boo xam ne njaw ne ca ca caw ca la jóge waaye yooyu yëpp wax la yoo xam dañ ko wax waaye amuñ ci tegtal bu wér boo xam ne wax ne loolu rek ñu ngi continuer di laaj di gestu laaj toujours pour man ca dajale daaw waaye sant bu ne am na jikko ñi ko sant noo jikko boo xam ne moom lay man caw laa sant caw dañ gaaw a mer bëgg a liggéey lool du ñu sonn dañu nangu liggéey naqari deret nee na ñu dañu bëgg a jigéen affaire waaw nee na loolu waaw nga seet ku bu ci ne nag noonu mën nañu wax lii mooy li meloom am na ci ñoo xam ne aussi ci santé yi santé comme seen santé seen lépp loo xam ne lu sacré la séeréer seen la koy santle xaw na moon seen ndol seen koox seen roog seen xamat seen ngool seen weer wi ah doon njeej seen alors lépp loo xam dafay yéeme boo ko yootoo mënoo ko jot seen la ko seere di sant mais seen boobu nag dem na ba koox ñoo koox seen roog seen mais ci waxu seere roog seen roog nulle part partout ki nga xam ne fu ne mu nga fa seen kii noxe seen boo seenee nit muy ñëw nga ne ah non xëy na kii noxe seen nit la nit ki la rek c'est-à-dire indéfini. On ne peut pas le définir, de l'expliquer qui est. Mais seen alors lépp xam nga yàlla ngam nga ko mais mënoo koo leer ba mu leer boo ne roog seen par ni partout nulle part fu ne mu nga fa amul fu mu ñàkk nekk comme ma baatam bi benn turam ñu wax roog a dangandee seen yàlla mi nga xam ne du faddu fu ne mu nga fa waaw.
am na sànni ne sant yi ñu lifin.
Ndour.
Ndour. nduur aussi ci saafi am na mbëtt bu ñuy wax nduur mbëtt animal la bu ko ci wolof nduur mbuum lay doon mais pourquoi nag nduur bi mu jël nduur kooku c'est un aventure que je ne veux pas bon min man ma ko expliquer mais toujours maa ngi continuer di laaj ca xam waaw.
Saar.
Saar Saar aussi Saar dañ ko mbokkaleeg gëlëm. dañ ko bokkale gelem ba saar boo den saar yoo xam ne bu ñu reyee gelem duñ ko lekk comme ñu sant seen bu ñu reyee njomboor lëkk duñ ko duñ ko lekk njomboor lëkk lièvre njomboor rabi ha duñ ko lekk loolu la tax boo seen duñu lekk daka ku ñoo njuma seen dafa demoon rib ci àll mu dem ba gaa nga bëgg a rey booba mu ngi nabb ci suufu garab lëkk bi mu bokkare mu ne ay njuma ba waraam njuma xajaam o xaja nga xan cooxong an ba maak ne njuma bu ma rey boo ma bàyyee dinaa la jox xam-xam bu mag mu jox ko xam-xam xam-xam boo xam ne bu ko tee nii rek mën na naaw dem ak xam-xam boobu dafa am nag yu bari ki nga xam ne mooy ki nga mujj wax léegi mooy leen saar saar aussi gëlem mooy seen mbokk ba gëlem ba tax na saar gëlëm bu fekkee rey nañ ko ku sant saar du ko lekk gëlëm du ko naa naa seen gëlëm saar gëlëm ci kaa joog li joog ci kaa joor yooyu yëpp dañ koy woy woy lu leen toujours dañu sant le gëlëm saar am na totem yu bari yoo xam ne ci gëlëm la aju moo tax ñoo ñu koy santale saar gëlëm saar moom lan mooy lifinam kan ci juuf juuf mbatt da am juuf am na juuf boo xam ne mbatt mbatt c'est un espèce de de gazelle eh, ne moom ci mbab kooku seen maam Diouf rëbbkat la woon dafa demoon rëbb moom tam mu topp mbaat bi topp mbaat bi ba mu yëg ko mu bëgg mu ne bu ma rëy dinaa la jox dara mu xam-xam mu jox ko xam moo tax ñi sant Diouf kooku duñ ko rëy duñ ko ko bu dee fay nee nañ xaj mooy ki nga xam ne mooy kii am mooy toote moom mooy mbokkam xaj lañ koy te ku sant fay waaw. aha.
léegi John jonn euh, jonn aussi euh, fekke jonn waxoon nañ ma ko mais ci sama xel ne jàppaguma ko Oh, mais jonn am na kuñ ko dàqale ko dàqantale woo Six.
ah six Euh, six six aussi jàppuma ko mais ñi sant six ci saf yi oh, dañu wax ne euh, fi Mandinka la ñu jóge ne ni ñu jógee ci Mandinka bi ñu jógee penku di gàddaay di ñëw ñu ngi xiif sonn ndox mi jeex lekk bi jeex seen lépp jeex ñu bëgg a dee tëdd rek ñu ah nañu xaar dee booba am na bar barando xam nga bar Bar.
bar bar bar saabaak bar saabaak Yeah. Okay.
eh, bar Yeah.
Eh, bar bar bi mu yéeg ci kaw garab garab bi am na pax bu fi ne mu jël geenam bi dugal ci pax bi def ndox mi ni ñu ne ah loolu de ndox la ñu seentu rek mu yéeg dem ñu ne ah kii nag eh, sunu maam la dafa ñëw pour sauver ñu alors ñu jël euh, jël boobu nag dem wut ndox togg naan ba tunoo alors vraiment ñu ne bon nag bar waratuñ ko rey kon tunoo alors ñi sant siis buñ fa jógee di ñëw boobu ñu ngi ànd ak jànq bu rafet tudd romb benn buur bu sant Cissé ci Mandanka buur bu sant Cissé mu ne ah seen jànq bi nopp naa ko ñu ne ah nun kat duñu may ku ñu xamul jabar wax wax wax ma mu jox leen ay nag yu bari ñu ne déedéet joxaale yu bari ñu ne jox ba alal bi bari ñu ne ah jigéen day sey rek fu mu mën di den day sey bon nag nañ ko ko may rek ñu may ko ko alors ba mu amee doom doom xam nga ci séeréer nijaay ñoo ko yar doom ñi ñëw fekk si nijaay bi am fay jabar ñu ne sant siis noonu la dugg ci sapi man sama yaay siis la sant sama yaay siis la sant loolu la ñu wax daal siis noonu la duggee ci séeréer waaw sap mooy Thiandoum Thiandoum candum candum yi aussi kooku amagoon ci tegtal ah Dieye jéy jéy du est-ce que ça fait waaye Morola ñoo ko am waa Morola ñoo am jéy wala waa euh, Joal Fadiouth mais jéy moom ci safi amul ci ñoom ci séeréer yàlla yi gisuma ko ci waa mhm.
Guèye Guèye géy Séeréer ah géy aussi wolof la foog naa am na ki nguuda géy ne moo doon seen maam euh, nguuda géy moom tam rëbb la woon mu jëflante ak rab mu jox leen géy boobu yu lañ ma ci wax ah lan la tekki.
géy ah géy nag jotuma xam lu muy tekki yow moo xam lu muy tekki waaw dañoo wax juuf. nga ne dañ ko- mu ne yaa ngi doon wax nga ne juuf dañoo dañoo daw.
waaw mais yow yow xam nga buñ ko waxee fañ ko wax wax bi fa mu jëlee il faut il faut pas avoir confiance 100% à la tradition c'est-à-dire que la ñuy wax euh, dañ ko déglu nii rek waaye warul tax ñu jàpp ko ne comme xam-xam la parce que Diouf fañ ko waxee tukulóoree Siré Abba Sow Siré Abba Sow historien la traditionnaliste tukulóor très moo xam ne très marqué par la culture arabe culture arabe c'est l'invention c'est invention c'est créer des choses qui n'ont jamais existé pour faire la grandeur des arabes Siré Abba Sow faisait partie de ça moom moom moo ne dafa am ah, séeréer yoo xam ñu ngi doon ci àll bi de rëbbkat bi ñu rëbb ba rey xawma ay ñay ñaay bi ñu rëbbee ñaay bi am ñu leen dàq ñu dem na dugg ci biir ñaay bi eh, ñu ne jawf xam nga arab eh, biir mooy jawf jawfu arab ñu ne à à partir ça ci la juuf jóge mais kooku c'est une imagination fertile amul tegtal moo tax bëgguma ko woon wax sax amul tegtal ne jaw baax na baax na nga baax na baax na ñu xam.
ah voilà jawf ne juuf boobu foofu la jo- jawf jawfu arab mooy ventre wala biiru dara ne jaw jaw foofu la jógee mais kooku Siré Abba Sow moo ko bind ci kii am waaye taxul daal ma kii ko wax Dégg naa ko bu aha aha ok su.
ah.
waa léegi bu ñu jógee foofu euh, donc sànq expliqué nga ñu séeréer mooy mooy lan maanaam séeréer baat bi nga xam ne moo boole seex saafi ndur waaw ak yëpp benn la woon.
waaw ex- histoire ñëw xajale Oh, oh, leen.
voilà.
wax bi moo wute. mais culture bi rythme bi benn.
voilà parce que dafa xaw a leeral question bi nga xam ne moom lañ bëggoon laaj laajte mooy diversité linguistique bi linguistique.
maanaam waaw.
langue yi wuutee ci biir groupe séeréer ak seen ak seen relation diversité linguistique ci saafi c'est eh, c'est histoire nit ñëw songale ñu tasaaru kii fii kii fii kii fii moo ko war waaye wax nañu ne euh, seereer benn la ñoo bokkoon ndey ak baay ñu am alal nag nag géttu nag dem ba ñu xuloo bu ñu xuloo ñu wut euh, xiisu ron fooy de roñi wut xiisu ron ñu ne ala nañu euh, dégeero kay dégeero kay c'est-à-dire nañu euh, daggante euh, riis euh, xuus mais boo meree nga nga jàpp ron nga jàpp fi nga dagg ak suñ diggante jeex demal ngay dem bi ñooy demee nag ku ci ne mu ne comme tàggoon ak sama frère moom quelque part il faut que dina am wax boo xam ne eh, dina wuteeg waxam ah, xam nga am na yu bari africains yi am nañ capacité di walbati wax bi nu leen ne eh, eh, eh, dégg naa dégg naa eh, naa ga de naga de boo ko walbatee nga jublu dégg naa eh, ka- eh, gari gari i, i, i, i gari ira ira gari ira donc yo- yo- no façon boobu la ñu walbatee wax yi mais boo seetee dëgg-dëgg waxu séeréer yépp presque benn la ndax boo seetee ci séeréer sex bi ñu doon wax ak séeréer saaf yi euh, séeréer saaf ma sex maar maar mooy lëtt séeréer saafeen maar lay wax ñafat ñafat séeréer sex ñafat lay wax séeréer saafeen ñafat ñafat waaw ñafat se- séeréer ñafat lay wax Euh, séeréer saafeen euh, ñam ñam xaaf ñam xaaf ñam euh, a kuux mais déedéet séeréer se gari ñaam pulaar it ar ñaam pulaar ar ñaam séeréer sa ar gari xaaf ñam euh, xaaf ñam Euh, bu- bu wax ne ci ci noonu ci euh, euh, ci wax boobu nag boo seetee wax yooyu fu bari bari ñoo ko bëgg boo dee ne boo boo bëgg boo waadi waadi waadaam waad moo de boulevard ba- bëgg naa saafee waad seere bale waad waaw loolu nga seet ne ato wax ji nekkoon na benn Euh, mën nañu wax ne séeréer wolof ak pulaar ñoo bokkoon benn wax benn wax ñoo ko bokkoon Eh, wax bi nag mu dem a dem ba ci histoire yëpp bu ne ajuma sis école euh, pratique de hautes études en sciences sociales eh, boulevard Raspail ajuma sis bind na benn téere euh, mu tudd thèse la woon mu tudd ko évolution socio-économique du Sénégal mais dafa ne waxu wolof oh, bi xam ne almurawit jàllaguñu dex bi booba far dex bi ni waxu wolof amul woon Euh, nan la amee dañu indi doole xare dëkk bu ñu wàcc ñu duma nit ñi war leen ak fas kenn du dem ñooñu ñu war nag ñu tere nit ñi wax wax yi wax yi nga xam moom lañ fekk ñu ne ak wolof rek la ñuy wax noonu la waxu wolof dem ba yaatu mais yaatuwul woon firiwul ne nag waxu wolof amul woon ndax waxu wolof bu fekkee ne seet nga lel lelu sereer lel yàgg na yàgg boo kenn xamul gàttoo et je pense bien que Égypte lañ ko jële ci woyu lelu séeréer woy yu bëri ci wolof lañ ko wax te ba koy séeréer di woy booba déggul wolof e baaye baaya mosali e baaye baaya mosali wewe mbeta mberia gunganya sarabure dama andamtami joy bice bace jamzarangenya cangal ngait koengai nan fasi be joy kuma bugentan yun yula dakotan kuma barmantik e baya mosale e baya e baya mosale Euh, kooku mooy kilifa ndut bi lel bi mu yore ay njulli am njulli yoo xam ñoo ko gën a yaa bopp mu ñaa ma ne ñaari ndaa ndaa yi njulli yi war a naane ak ndaa bi euh, njiitu njulli bi war a naane mu jël poson def ko ci ndaaw njulli yi pour bu ñu naanee feebar dee njulli bu am bopp mu nag mu jël ndaa boobu taajal ko kilifa ndut bi mu jël ndaaw kilifa ndut taajal ko njulli kilifa ndut bu mu naanee mu dee moo di ne nit man nga xam sa bopp waaye mënoo xam ñëpp man nga am xale bu tout sa kër moo la gën a yaa bopp bon nag booy def defal la xam nga jumloo bon nag ci waxu olof yàgg na lool mais ñey wax olof eh, dañu ñëw ak murabituun eh, ñooñu nag wolof li ci ëpp ñoo nekkoon saxra ak naar yi nit ku ñuul yi séeréer ak pël ñoo leen jiitu ci puloob wolof saxra bu lañu ànd te ñoom na- sa waxlu wolof naar yi nekkoon saxra ñoom wolof ñoo mujj ak ñoom ñoo nekkoon ak ñoom li leen indi ci nit ñi mooy almurawit te mouvement almurawit moo indi communauté wolof te wolof yooyu nekkoon saxra métis la woon amoon na séeréer am sonenke mu am pël ak berber ñooy nag ñoo def forme communauté communauté boobu ay xeexkat lañu ñoom la arab yi joba toj kumbisala ñoom la arab yi da toj mali ñoom la arab yi ànd toj ghana empire ghana jëkkum ñoom même communauté ñoom la arab yi ngeen bu wàcc euh, fuloof bi euh, fekk séeréer yi waalo ñu duma leen ñu fekk leen ka jolof ñu duma leen genni leen boo ñëw nag traversé fuloof bi nag sos royaume de de empire de de de de de de jolof empire jolof fekk si ñi la wax nee nañu le le le ñi nga xam ñooy njiit ñi ay séeréer lañu woon ña ko jiitu woon mais soldats yi ak yeneen nag composé bu yëg la woon alors loolu la ci historien yow wax ne noonu la demee woon Euh, noonu la demee woon mais bi ñu wàccee fuloof bi ba ñu traversé fuloof bi léegi dañu doon rek forcé nit ñi dow alors loolu séeréer wax nañ ko la dat ganaara suuna yee jëri joon na ba dat ganaara na yee jëri joon na ba ba ne yooni ganaar safara bi yemoon ci kaw waaye séeréer bi jàll na dex bi ba sori naar yi wane ne bon euh, le- noonu la woon histoire eh, ginnaaw ga nag la wax wolof wàcc ki bi ñi mu somb yëpp mu def leen wolof ñu turu Euh, parce que ñu bari ñu wax wolof tey ay mandink lañu Cissé Kébé eh, Cissé Kébé Dramé eh, ah, sa- sa- so- yooyu ay mandinka lañu Sissoko ñoom ay mandink Guèye sax Guèye la plupart de Coulibaly la fa Guèye au neuvième siècle faal kulubali ñoo ñëpp ci ginnaaw gi la ñu jël wax wolof di wax mais daawuñu woon wax wolof waaw
so beneen case beneen question bi donc mi ngi jëm ci xoy yi xoy séeréer yi. fan fan la jóge ak ci yéen. festival festival yi nga xam ne ñoom dañ koy def.
ok xoy séeréer yi ak festival yi nga xam ne ñoom dañ koy def.
waa xam nga xooy séeréer maa ngi ñu ngi ma invité Konrad Adenauer euh, euh, fondation Konrad Adenauer wax ma naa ci lay ma def euh, les pouvoirs magico-religieux c'est les femmes sérères du Sénégal wax naa ci ci saltige wax naa ju bare ana séeréer yàgg na xëy na ñëpp amoon nag waaye yàlla dafa defoon bopp bu rëy ci ñoom benn nu ne la leen yàlla mayoon yooyu yëpp maa ngi doon xalaat ma ne bu ma dem ba sama doom bu ñëwee mu def ko ma internet yónnee la ko yàlla def nga ñëw seete xooy na mu doon amee bu jëkk ak la taxoon mu am euh, loolu dañ ko soppi léegi c'est que civilisation bi ak bëgg a daram tax na valeur xooy def na ko xooy bu jëkk eh, la ko taxoon jóg mooy nawet ndax taw dina am wala du am ndax soccet yi dañ yàq mbey- li yàq mbey dinañ ko yàq wala deet lool moo tax wala am buur bu leen sonal wala beneen xeet bu leen sonal lu xooy booba bu ñu ko wootee dëkk bu ne dangay woo waa dëkk bi ngeen bëru fële dëkk bi dem bëru fële dëkk ba la bëri dëkk bu ne am na njiit bu ñu demee dañu jël yet samp waa dëkk bi yëpp ku ñëw nga siggi ci yet bi nga ne ah, nangamoo nangam laa gis ci guddi keneen ah nangama nangam laa gis ci ka- nangama nangam laa gis ci guddi bu fukki dëkk defee noonu ba pare ñu dajaloo ñu seet benn kilifa boo xam ne la ñu wax yépp ñu analyse ko segg ko mu ko ñu ne kooku moo war a wax kooku buy wax dina gis dara ba mu wóor ko waaye du wax ne nangam laa gis parce que boo waxee diw dina dee mbokkam yi naxa loo xamee ne ngay dee ñu mën na leen problème mais buñ sampoon ñu ñu wax doon wax ne dëkk bi nee nañu gis nañu ëkku garab bu sol bu ngemb bu sol tubay c'est-à-dire un cadavre c'est que buntu kër sangam nit dina ci dee wax ne gis nañu euh, buum bu ñuul ci buntu kër sangam kooku c'est njamboñ c'est serpent téléguidé jaan boo xam ne jaan bu lekk laalo la ñu wax bu mattee nit ki rek da ngay dee nit man ko bu dul boo xam-xam ñu ne gis nañu buum bu ñuul jotoo wala boog ñu gis ne euh, am na koo xam ne mu ngi bëgg a do- dugg ci dëkk bi yàq ko bu ñu dajee ñu ñaan la ñu ñaantuloo bu fekkee ne euh, amuñu woon buur ci fi ñu dëkkoon nun waaye fekkee ne am na ku yaakaar dina dem songu dëkk bi la bi tubaab bi ñëwee nag buur amoon na waa buur bañ tayee sama papa la ñu wax ah, yow sa maam yi ñoo moom béréb jógal bay palaas mu dog bay bay palaas fa ñu war a daje buñ dajee ñu def seen affaire ñu ne ah gi buur bi de gis nañ ko mu ngi nii de loolu bu fekkee ne door na saa li ñuy wax saay door ni figure yi nga xam day feeñ li nar a xew ba déwén day feeñ ci suuf si ñu ne bañ ko defee gi am na bu fekkee ne soccet moo feeñ wala lu mu mën a feeñ rab bu mën a feeñ rab boobu moo bakkanu kooku bu fekkee ne rey ngeen loolu kooku day dee bu ngeen ko dammee moom dafay damm bu ngeen ko sànnee dafay sànn kooku bu ñu ko defee buur bu ñuy wax duudu mbàkke la woon bo boori mille quatre cent cinquante yu dem noonu ñu gis ko ñu ne waaw nuñ ko def ñu ne nañ ko rey waaye ñu ne déedéet bu leen ko rey ndax am na lébu la waaye am na nijaayoo biram mboot kooku yokkaam la sunu mbokk la te duudu yokkaam buñ ko reyee sunu mbokk la ñu daal bon nañu def ne nañ ko sànni buñ ko sànni mooy dañuy jël lépp loo xam ne li ko suuf soolu def ko ci dara dem ba ci euh, frontière u dëkk la ñu sànni bi ñu ko sànnee mbuur boori mbuur lañ ko sànni bi ñuy affecté chef de canton yi ñoom yóbbu ko mbuur loolu du aw fekkee ne aussi taw bu ñu defee nii am na ridd yoo xam ne euh, taw bi fu mu feete day feeñ ñu ne nañu wax am na ba am na garab bi ñu wax pogoy moom la ñu jël euh, xotti boo xottee lor indi rek ndox bi day dal di tuur day dal di taw taw taw di doog kii ah kii maam maama naka la garab bi tudd nga ne ah, pogoy pokoy pogoy kii maamam ñu ngi dëkk suñu maamam ñoo ñoo ganoon foor ci yif yooyu ba tey euh, dëkk mu de yaayam dëkk mbomboy ñu ngi koy def ba léegi Euh, ci noonu ne taw bi bu fekkee ne ñaan nañ yàlla mu taw ndox mu bari bi na wo wone koox koox seen Eh, inif on ndafi wa ganji wa ji suut di xawsira oh, yàlla noo la daan ñaan ndox li ñu may bariwul tuutiwul waaye nag ñu ko wàññil tuuti ndox mi de tëb tëb tëb tëb tëb tëb to dootu tawati alors yooyu moom lañ wa doon defee xooy Euh, moom lañ doon defee xooy te buñ ko defee dëkk ñu wax kisan ñu ngi ma wax ne di boon ngomaag moo fi nekkoon seltige bu mag mu wax ma ne euh, mos nañu toog ba mois de juillet août ndox amul dëkk bi yépp tiit ñu daje ci kisan fa ñu dal nduumaan garab la garab bu tudd nduumaan foofu la ñu doon daje lu ñu bëgg a def ne bañ fi dajee mag ñi yëpp wax ah fii day gisuñu ndox fii daal gisuñu ndox bi rek ku ne jóg kenn ah am ku jóg waaw fii daal foog naa ne eh, fii fukki fan dina taw keneen jóg ne kii daal ba benn xale bu tuuti ñu ko wax Pierre Puy te boobu xale bu tuuti góor gi ne dama ko wuuf nii mu ne ko wax leen ne dina taw tey tey tey tey tey ñu ne ko yow yàlla sob xale bu juddu mag ñi wax nañ ne que ne nga ne day dina taw mais bañ fiy jóga ne mu xëy xëy noonu commencé ratatatata dafa taw ba ndox yi di ko wóor Euh, da taw rek da ñëpp mais aussi ñu am jamono euh, tawul tawul bee li ñu jiwoon yëpp di dee booba am na géwél booba am na géwél bu ñuy wax xamanjuma xamanjuma am nga géwél booba dañ koy dugal ci guy paxu guy xamanjuma nag dafa amoon bopp ne bu muy dee mu yóbbaale ndox mi mu yóbbaale ndox mi ba ñu dajee ñu naa dëkk yëpp daal nee nañu ndox ba ñu ngi ko waaye kisan kisan laa la ndox mi ñu ne il faut ñu sas rituel ñu ne il faut ñu dem gàddu fetel yi ak xeel yi dem rëbbi ci àll yi bu ñu demee gis ngaay gasel ah eh, gasel la gasel oui waaw mu génni rek ñu dàq ko boo boo boo boo ba ñu dàq ba ñu ko jamee rek boobu am na am na am na leket boo am leen kofal ñu ko wax kofal leket boo am leen ni mu am benn gémmiñ ne boobu mu nga fekk ndox nga ndox moo ñu toj ko rek mu commencé di taw bon saltige ñoom la leen taxoon jóg mooy loolu waaye saltige léegi li ñuy def malango mooy politiciens yi dañ leen dugg di leen ba ñu dañ dem ba buñ ciy dem dañuy naan sangara ba dootuñ xamati dara Eh, dañ xam ne daal ñoom bu ñu fa demee eh, ak politiciens yi leen gis ñu leen di pro bëgg a politiciens yi ñëw ci ñoom ñu defal leen eh, galaaj defal leen ñoom tam ñuy wax lu leen neex ñuy wax léeg-léeg ñu wax dëgg waaye li ci gën a bari yépp du dëgg mais bu njëkk lu ñu saltige waxoon rek day am bu amul sax da ngay xaru saltige bu waxoon nangam dina am te amul da ngay dem nga xaru Euh, mu ngi may nettali rek ba ka démb siin laa jóge démb laa ñëw pour war di def enquête ñu ngi may nettali benn saltige wax ñu ne ah dëkk bi daal ne la li nim na mu ne waaw dëkk bi day dëgg la am na koo xam ne daal cadavre kuy dee waaye man nag bu ma bañul woon daal ñu jàpp ma bon ma ne leen dëkk sangam de waaye man gis naa néew buy añak kuy dund ku dund kuy añak néew waaye nag ñemewu ma wax fan la ak nan la mu ngi ko wax ci suba ci midi ba benn xele góor bi xam moo doon añak boobu mu dem di dox ci tali tali boo dem kaw la boo ñëw ba passé gànjaay rek oto bi ne ko tel foofu rey ko néew boobu la gisoon c'est que saltige bu njëkk xam-xam la da ngay gis moom saltige nag am na boo xam judduwaale la da ngay juddoog moom waaye am na boo xam ne xam-xam la xam-xam fii ne yow boo amoon boppu tan tan xam nga tan boo amee boppu tan mën nañ la ci dëggoo xam nga tekku sabab lépp luy xew rek da nga koy gis te du la comp kooku nag mooy boo xam ne da nga ko wut mais ki nga xam ne judduwaale la kooku da ngay juddu nga judduwaale yàlla may la yaa bopp lu ne ngay gis waaye li ci gën a bari ki nga xam ne dafa fees bopp lool ba mu ëpp kooku du gudd fan du dund lu bari walla def nii rek mu génne àdduna mu dee loolu moo yàq moo tax ñu bari bu fekkee ne gis nga ne sa doom dafa yaa bopp lool da nga koy muur boo ko muuree dootul gisati dara ci lay mën a gudd fan mooy xam-xamu saltige boo ko muuree borom dootul gisati waaw bu fekkee mu ngi gis lu ne muy gis borom xam-xam yi dañ koy sot xeex ko ñu ne kii dafa sob ba du dund lu yàgg waaye buñ ko muuree dootoo gisati dara waaw.
jërëjëf yaa ngi doon wax am si loolu noonu lifin naka nga ne benn bante buñ doon sànni buñ doon buñ buñ buñ buñ doon difin nit ñi yow di si di si wax.
Waaw.
saltige yi. loolu baat bante boobu naka lañ ko dee waxee si baati séeréer ou si baati saafi ou anyone.
baatu séeréer mooy sangul.
sangul.
sangul waaw sangul bu dee saafee ndood ndood bu dee ñalee sangul sangul c'est ci tegginu nit ku ñuul du wax dara ba mu leer daf koy junj dégg nga bu baax sangul yet la boo xam ne dañ koy samp dëkk bi wute ne am nañu yaa bopp lool am nañu xam lu ne am nañu xamul dara am nañu xam tuuti waaye ñoo yëpp bu ñu jaaree ci sangul boobu ñu wax lii laa gis lii laa gis lii laa gis ku ñu ne lii laa gis lii laa gis lii laa gis kooku nga xam moo ne ci wetu sangul bi kooku mooy jàpp seen wax yëpp keneen na nga fële keneen na nga keneen nag ñooñu nag bu ñu dajee ñu xam ne ah sama waa dëkk bi lii lañu wax ñeneen suñu waa dëkk la lii lañu wax ñe leen ah seen dëkk waa dëkk li ñu wax daal des nañu leer ñu ni wax ba ñu ah boo ne lii lañ jàpp ne daal mooy lu leer alors noonu noonu da def sangul mooy sangul lañu doon def sangul lool
waaw
so beneen beneen laaj bi donc mi ngi dem ci julli wala ñaan waaw séeréer ñoom naka lañ doon jullee wala naka lañ doon ñaanee oui maa ngi maa ngi tegal benn bukk Mhm.
ci euh, livre de la prière sérère mais livre de la prière Ah, sérère et cent et quelques mais nag pareegul Pa- yooyu yëpp bëgg naa tout suma la jox livre de la prière sérère tulo Euh, ñaan sérère ni mu jàpp yàlla yàlla du loo xam ne dañ koy jaamu comme ni arab yi def ak chrétiens yi jaamu yàlla di ko topp neeneet mais yàlla euh, moo feete yépp yoo mais yàlla li am àddina yépp daf leen jox autonomie interne autonomie c'est-à-dire Dieu n'a pas monopolisé tous ses biens mais il a accordé euh, un, un, un autonomie à chaque un, à chaque être lu am rek yàlla jox na la autonomie ya mooy ragi God did not keep his his goods, but he, he gave it to, to humanity. Once you can pick.
Okay.
euh, sereer He's talking about free will, yeah?
waaw pour waaw séeréer du ju- du julli ndax yàlla baalal ko bàkkaar du julli ndax yàlla bëgg ko du julli ndax bu ñaan mais li muy ñaan bu amee problème concret ndox amul soxla na ndox soccet baa ngi yàq les prédateurs ñu ngi yàq jël soxla na ko nit ki dafa feebar soxla na ko alors yooyu nag lay seere daal buy amal les sacrifices offrande yi muy joxe joxu ko yàlla mais sunu maam yi deewoon ñoom la ñu jox offrande yooyu maam yi deewoon moom lañ jox offrande moo tax séeréer bu ñoo foofu le nuun a ley gaaf ke nuun a ley pooy ke nuun a ley Eh, eh, yo ñaam yo bo maaga ñaama a gugu jaanoo ne yeen maam yi indil nañ leen seen ndox indil nañ leen seen lekk indil nañ leen ndox boo xam ne nga gu ga raxas ngeen gem rincele bu indil nañ leen eh, cox bi nga xam ne seen xaj yi yi ngeen doon doon seen wàlla ngi ni léegi nag ñu ngi dem ci nawet dañu bëgg ci seen barke dañu yàlla yàlla jox taw taw bu am barke taw bu ànd ak jàmm taw boo xam ne dinañ mën a am dugub yu bari ba nun ñu boo mënee lekk ak jàmm kooku bu dee dem ci nawet bu ñu nawetee ba dugub na genni doo nawet genni dugub bañ jëkk a góob dugub yooyu la ñuy wut defar ci euh, loo enfariné ngib maanaam wal dugub def ci ndox wala boo bu dee siidey meew yow soow nga dem cee palaasu maam yi euh, nga wax ne ah léegi nag dañ ñaanoon yàlla nawet may nañu nawet ak jàmm léegi dugub bi ñor na te sañuñu ko lekk te joxuñu leen seen wàll bon nag seen wàll mu ngi nii yu ngi nii yàlla nañu ko lekk ak jàmm yàlla na sedd fa yaram yi sedd yàlla bu ñu am nattu kooku bu ñamte la bu fekkee ne dem nañ ba nit feebar yu ne yow yàlla kii day feebar na dafa feebar xamuñu ndax feebar bi yow yaa ko def wala nit moo ko def bu dee yow yaa ko def ñu ngi lay ñaan nga dindil ko ko bu dee nit moo ko def eh, ñu ngi lay ñaan it loolu nit ki def mu mu dañ yow yàlla yaay ku war yaay waral kóonurum xam nañu ko. Euh, bu fekkee ne euh, comme ni rek comme saltige laba jeen ngom saltigo mag la woon siin laba lu mu doon wax rogo yal insen wore maado maadwe ku yëg na wo ci on ko ñak na wo xaña ku faluno wo falun huño ɗum worde in we gaɗame o ciya ina mboyam jam kana bisida natange abisida fo fo fo def natange fo in mbaga ñam fo jam in fo basilin amin ne yalla yow yaay buuru buuri lu am yaa ko sos lu nit am yaa ko ko may lu nit ñàkk yaa ko ko xañ léegi ndox lañu soxla ñu bëgg nga may ñu ndox ndoxu jàmm ndox bi nga xam ne dafay indi naataange mu indi dugub ju bari benn ñu mbare ñaan ak jàmm ci séeréer dina julli aussi ñaan ñaan wi mu jaarale ko ci jant bi wala ci weer wi ah da da ngool seen ah da ngool da da njeej seen njeej gulwar seen njeej gulwar ku waagee na dawa dara baa waak na en teg tug mooy yàlla moo amal jant moo ko sos moo ko amal mu ne man nag yàlla maa ngi lay ñaan koo xam ne manu tere jant bi so manu ko tere genni kooku ku mënul loolu maa ngi la ñaan bu mu man dara ci man kooku bu fekkee yaa ngi dem xare wala yaa ngi ci àll wi nga day boo ko ñaanee eh, yàlla dana nga mucc dañ ñaan yi aussi pour weer bi bu fekkee ne seere demoon na ba weer bi feeñ ba leer dugub ñor ñu kontaan loolu it doon nañu ñaan ci naan eh, jam bugum jam jikka roogo yàlla pexe ngool seen ngool jam we ŋaayna fota mbudu fa jam we mbodeerna ñoot fa jam o ciya in jam mbindo koɓo eh, mbindo koɓo eh, mbindo koɓo o ciya in jam yengo eh, ñaalo yengo ngeso en bogo o ciya en jam en jega jam en jeganira jam amin roog sen mooy weer wi kat yàlla la feeñal ah nu ngi ñaan jàmm nañu am jàmm rekk ci kattanu yàlla ak pexeyam ne yàlla yow yaa yore jàmm sa weer wi na doon weeru jàmm ñi nga xam ne dañuy yéeg ci kaw garab yi yàlla nañu wàcc ak jàmm ñi nga xam ne jigéen yu omb yàlla nañu wasin ak jàmm ñi nga xam yang yang ñu may jàmm ci àll bi ci kër gi nang ñu may jàmm ci suba guddi ak ngoon yàlla ñu ngi lay may ja ñaan jàmm nga may ñu jàmm nun jàmm la ñu bëgg jàmm la ñu am ci kattanu yàlla ak pexeyam al yu mel noonu moom la séeréer doon di def juróom bu fekkee ne buur bu na rajonoog in wey meexe in tooñerante in tooña in yaasam rooga hatea in roog seen roog refanene refanene ke fa falwe akajo serero he roog refanene ndubaba akajo serero he bonene ay heda roog aten fo jam koku bi nga xam ne laba uh, ba ma, ma ba jaaw mu ngi songo siin yo ñu doon wax ko do fen ñu wax ne yàlla nun de tooñu ñu ko moo ñuy tooñ demuñu fekk ko moo ñëw fekk ñu ah ñu lay ñaan nga attañu ndax yow ñépp nga fi nekkal nekkaloo fi rek wolof yi nga bàyyi séeréer yi nekkaloo fi tubaab yi nga bàyyi séeréer bon ñu ngi lay ñaan yàlla kii nga xam moo ñu tooñ ñëw ba suñ rek nga àtte ñu ba ñu dajee séeréer yu rey ma ba ñu dagg ko morso dagg ko morso morso fu ne ñu yóbbu morso bobbo yo jox ko tubaab yi yóbbu France waaw ñu jël si ndax xam nga si ndax ñu jël si ndax suul ko ñu ne bameelu ma baa ngi fekk maba nekku fa maba dañ ko tasaare gi si ndax ba moom lay suul foofu waaw mag jàpp bi ngeen jàpp jëlu dugga foofu noonu si am si yaa ngi wax laba jën ngom laba jën ngom foofu noonu si lifin bi li nga mooy li nga wax si si battle of am battle of soom moom la ñëw moom ngay wax ni maam ñoom ma tafsir Maba Jaxu Jéey ak Kumba Ndoofeen Fam ak Juuf ak laba jën ngom si buxeen boobu la bokkoon waaye si lifin naka lañ ko am na ay cosaan yi mooy ñi fii naka ñu daaga ñu bari ñu mag si li Sénégambia ñoom la ñoo wax Battle of Somb ñu ne ko si baati séeréer am naka Battle of Man Battle of ah, Fandaan Concooñ Fandaan Concooñ 1867